Football automatically sends real-time information on goals and results and much more to your mobile wherever you are. Just send your team's name by SMS to 411 and get live updates on goals and scores for only one Dalasy. Send your team's name to 511 to get one month's worth of Q Football updates for only 10 dollars. Q Football. Follow your heroes. For more information, call 111 producer, Senior the Gambia's Quality Network. Comium Super Savers. The lowest international call rates ever. Yes, you heard it. Corium offers you the lowest international tariff ever. Lower than anywhere else. Corium Super Savers. For the first time, you can also use your bonus credit to make international calls. Only from Corium. Now is the time to call family and friends all over the world at rates you can definitely afford. Comium brings you the lowest international call rates ever. Name your country and we got the lowest rates to that destination. One of the many reasons we say your credit lasts longer with Comium. Comium. We are better together.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 gambia la paramount chief ti komonot la sefo matel ti alhaji demba sanyang mimbe o dala wolomu ajaratu mariama ba sen kansulo banjulundi ward a telefona mu vice chairman ti birkama area council mimbe mariama dala jana wo dandi ka koy tiyo wolomu alhaji salifu siseti alkalo sincu alaji e mimbe marala ja nyimmuso wolomu e ajaratu binta sabali atele fana mu federation president west coast region mimbe o dala wolomu alhaji solo mareti atele fana mu social security commonwealth executive committee e jang nga programme le soto nyanta min tandila la wolomu commonwealth ye gala dina la soto aprc pati toyala ya jamela bunya koto Eh, ye alium bay nder senegal wala nyanta nala jang anin jali ba kuyate on the 24th 25th 26th bari ko be laari nyaaw nyaa nyaama diamu laal min kan e ba fulal yele e eh, nsa folo paramount chief la paramount e eh, nyimbe ngo min kana nan ite mine soto jebe min fola ba ye alhamdulillah rabbil alamin ka mansa kallanke tentu ka folo na banko pati min keta banko président oti his excellency cheikh professeur docteur aladiya ejeje jamme ñim be mala buña landa siriŋole ti eh, kombono de gambia bele ya long surtout nañi ñaton ka kendo ala ñaton ka ya kono min patimu aprc ti wolle fanan président la duño kan ala horma baka na la duwa mbe eh, mandinkolu ko ŋa ɲannaŋa yande la wolu le naa la ka beŋo ke aniŋ senegal la eh, dananolu aniŋ gambia faŋo la ɲontaŋo jaliba kuyate ñiŋ ko na ciyamano ye a fo ñamiŋ na dibiteba ye a fo ñaamiŋ karo tili muwaŋ aniŋ naani le kuo be yele la addiyamulalu be fulali le ndebe ɓe min fola gambiyankoli liye anin alhamdulillah rabila jiberilalu mo wo mo i fana ye hakkole soto ila baluwo kono andu wo hakko mumuneti ala nyato ñaato nga kendolu min dila wo aniŋala ka kafo bi gambiyankolu bee kullonin banke to isa fo alhamdulillah rabbil alamin bawo kayiro min be ñin banko kam bi amantara moye kumbala andu nin ka, ka, ka, ka ɲaɲa ɲo la ka ŋaniyo ke ɲo ka ɲo la ɲanto di la ŋa wo ɲaton ko le soto bari yamula le b'a fola le nte be min fula dɔrɔn eh, be be tentula mbe be jayi la sankuto la eh, baraka bake baraka b'a paramount chief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 paramount chief jerejef nuyu naa delegation bi ñu àndasil fii nii maa ngi nuyu nag suñ président bi cheikh professeur docteur alhaji yaaya AJJ Jammeh Nasiru Diin ki nga xam ne moom waral tey jataay bii nii ndax bu ñoo am télé si Gambia wara a mun fi di am eh, panel fi docteur alhaji yaaya AJJ Jammeh Moko waral kon President Jammeh jerejef yal na la yalla ar yalla mun a yal na la yalla wutul bopam samal la bopam hmm. man honorable lima am pour wax suñ mbokki Gambian yi Kombo North di power house wu len mbir suñu sani konte jotna na konté da ngeena Sahel ñep waye kenn ku nekk sa hel sa nopa yëpp yaa ngi ne lan la combo North di isi bobu combo North nak tay ñoo fi ak suñ kelifa ji di eh, président Jammeh ak suñ kilifa eh, paramount chief Alhaji Demba Sanyang si ndigali président bi ci la ñoo ñëw def suñ fundraising bi fundraising mooy poyam uti xaalis pour ñu mun a toppatoo suñ woot bi mun a toppatoo suñ district bi ndax ñeneenti woot moo nekk si district bi ñu ne bu ñoo raga sa gannaaw gi yow sottil ndox si sa biir bi <laughs> ndax lépp duñ ko bàyyee ne nguur gi nguur gi nguur gi ñun ñooy nguur gi ndax kenn ku nekk war ngaa am ci li ngaa yëngu ci sa gox war ngaa am ci li ngaa yëngu ci sa réew su président defee lii nguur gi def lii yow it mu am loo def ndax élégasi bi ñu ne lan nga fi bàyyi woon lan nga fi def léegi nag ci loolu la ñoo yëngatu ñu oo Aliou Mbaye Nder bu Sénégal seet si ma groupe ànda si ak Jaliba yaate ki nga xam ne mooy ndaanaani ndaanaan yi te moom moo nekk bàyyi social and development committee bu Kombonot te Kombonot ñooy oote ndax ci réew mi ku oote rek dinañ la uyu ji kon Kombonot seen bés taxaw na seen bés jot na ñu ngi ñaan Gambian si yëpp ñu génn si seen laaj numbers ñu ñëw ci fundraising bi ñoo am ñaar fukki fan a ñeneent ñaar fukki fan juróom ak ñaar fukki fana a juróom-benn ci weer bii ñu nekk nii loolu mooy ci semaine buy ñëw kon yéen mbokki jigéen ñi bu bu leen des gannaaw ndaw yi góor ak jigéen ñu ngi leen ay oo képp koo xam ne bugga nga APRC soppe si nga te yaa ngi toog ci réew mi ñu ngi lay oo ñëwal ci suñ fundraising bi ngeen seet Aliou Mbaye Nder lam am la moo jëlee senegal isi ko tombe ak album yi nga xam ne moom la Jaliba Kuyateh jëlee bitim réew isi ko fi ak bu ees bi moo wax ne Aline Toujé ah bu bu boobu raw Aline Toujé neex na neex bi nga xam ne dafa yëngal mag fu ko tegal rek boo ko dégloo rek di nga yëngatu affaire yi mbugeel la cee wax te ñun Gambia dañ war a bugante APRC dañ soppante dañ bugante te président Jammeh dafa bugg a réew mi kon Jaliba kasetam bi dafa ñëw si taymam te kaset boobu lañu ñu Jaliba di ñëw tegal albumam boobu. kon ñu ngi leen a oo yéen ñëpp na ngeen ñëw si ñaar fukki fan ak ñeneent na ngeen ñëw si ñaar fukki fan ak juróom ak ñaar fukki fan ak juróom-benn koo xam ne yaa ngay yëngu sa xol la ngay yëngu ci APRC si biir Kombonoor rawatina ñeneenti woot yi bëgguñ kenn des gannaaw alkaali yi ñoom pare nañ da gis ngeen fi alkaali Salif Cissé youth si pare nañ da gis ngeen fi suñ secrétaire social secrétaire bi di Salif Maar te xam naa ne président réew benn gaay ki nga xam ne moom moo nekk fédération président moom pare na moom ak waa women's bureau kon nag area council tamit ñu ngi leen a oo te bëgguñ ngeen des ci gannaaw ndax si seen gox bi la si West Coast Region lañ koy defee te Kombo North mooy xoli West Coast Region kon nag o na ñëpp na ngeen ñëw ci programme bi wax bi li ci des dina am ñu ko jekkali wasalaam